Je man le docteur Djibril Sarr, je suis pharmacien, je suis président du mouvement Alliance pour une nouvelle direction Je Tay dañ fi comité exécutif du mouvement bi ñom ñoo fi pour def Ben réunion réunion bi très ñetti ponk la ponk bi njëkk bi moy information euh, ponk bi ci ci top bilan de notre compagnonnage avec Fal Askan bi de Talisila troisième point bi moom moy perspective ak orientation yi nga mouvement bi à partir d'aujourd'hui et quatrième point bi moom mooy divers def naa wax nañu ba ci trois points yëpp quatrième point bi moom moo ci def dama bëggoon résumer li nga xam ne moom lañ fi wax ci wàllu information moom mooy que ni fii ngeen ñëw tey moom mooy siège mouvement alliance pour une nouvelle direction siège la boo xam ne tey lañ fiy def suñu réunion bu njëkk mooy doon suñu siège fii la ñuy daje léegi information bu waay bëgg fii nga koy fekk see fii nga koy fekk see deuxième euh, point bi moom mooy ubbi nañu benn page Facebook boo xam alliance pour une nouvelle direction la donc lepp li nga xamni ci walu information la ci walu manifestation ak lepp li nga xamni mouvement bi mi ngi koy def nga bëgg ko xam bo duggé ci page bi di nga ko xam motax lolu page bi tay euh, mom lañ doon euh, créer nañ ko ba paré té mom lañu fasiyéné légui di alimenter bu baaxa baax defe naa yeen wa ties Info sax xam ngeen page boobu euh, troisième point bi mom moy suñu carte de membre yi dañ ko fasiyéné lancer tay commencé ko jaay lolu mom moy information yi nga xamni amon na léegi deuxième ponk bi moom mooy euh, bilan bi nga xamni euh mom lañu andone ak talasi la ñu doon def évaluation bi bilan bi etc etc euh ñu xamni ñun mouvement bi ñu ko créé le 14 mai 2017 ñu def lancement bo xamni lancement bu jéggi dayo la vraiment c'était bien et populaire bañ ko défé ba pare def défon defoon euh, desoon euh, ñaari semaine pour ñu déposer liste donc ñun ñu won dem élection biñu ñu bi ma journaliste yi laajee dama ne leen ñun dans deux semaines dinaa leen wax ndax dinañ dem élection ak bu ñu dem élection kan la ñuy àndal ak lan moo tax ñuy ànd ak moom. bi deux semaines yi jotee ma convoqué presse bi sama kër yéen ñee na fa nekkoon sax yéen waa Thiès Info def naa affaire yaa ngi fi ma ne leen ñun bëgg nañu dem élection pour ñaari raison bi ci njëkk mooy créer nañu mouvement léegi mënuñu toog rek xaar élection yi jàll ñu continuer suñuy manifestation donc pour avoir de la pour am visibilité pour fës pour nit ñi xamni alliance pour une nouvelle direction mouvement citoyen bo xamni day yëngu ci askan bi yëngutu ci développement pour ñu fës il faut ñu bok ci élection yi ñu d'accord ci loolu ñun ñëpp dañ cee waxtaan ba d'accord, ci biñ ci d'accordé mu des choix bi nga xamni kan lañu andal kan lañu andal ñu waxtaan waxtaan xol leader politique yépp yi nga xamni ne ñoo nekk Thiès ñu ne talasi la moo gën a jege ci ñun li ñuy yëngatu parce que ñun développement la ñuy def ak citoyenneté parce que association est mouvement bi nga gis prolongement de l'association association bu ñu créé won ñun ñi bu yëngu développement santé culture etc. depuis 2008 chaque année dañuy def ay manifestations santé environnement éducation et tout La na presse locale bi yëpp xam nañu loolu dañ ko doon def te suñu fonds propre suñu moyens ñun ñi amul un état bu ñu a jox dërëm ñun ñoko mësa def loolu moo continuer ba jur mouvement bi moo mouvement bi di yëngatu ci citoyenneté parce que bu fekkoon tey ñun li ñu def yépp Thiès xarala yi amoon na ñu wane ko defe naa ni feneen la ñuy leneen la ñuy wax parce que quand même on a fait beaucoup de choses à Thiès te defe naa presse bi soo témoin ñu ne comme Talla Sylla moom askan bi lay yëngatu vraiment moom askan bi moo ko ñor et cetera ñun jege nañu vraiment ay ay ay xalaat donc nañ tànn Talla Sylla pour ànd ak moom ci élection législative yi rek nag defe naa loolu tamit image yaa ngi fi bu ngeen ko ubbee da ngeen ko dañ doon ànd ak ànd ak mouvement Fal Askan pour élection législative bi ñu ak mouvement Fal Askan Fal Askan pour élection législative yi d'ailleurs maa ngi ciy profité pour remercier waa mouvement Fal Askan bi donc euh, remercier seen président Talla parce que vraiment ñun bi ñu ñëwee tamit ubbil nañu porte bi vraiment nekk nañu ànd ak nañu ñoom campagne pendant trois semaines vraiment tout s'est passé tout s'est bien passé ci loolu rek maa ngi leen ci remercier objectif bi ñu ci bëggoon nag am nañ ko parce que li ci bëggoon ben moy visibilité am nañ ko ci campagne électorale bi euh, ñaareel bi moy expérience électorale bi ñu bëggoon am nañ ko manam xam nañu élection législative campagne bi nu muy demee ak et cetera et cetera beaucoup de choses maintenant page bobu jeexna na parce que élection législative rek lañu waron and ak ñom xamuñu nag yalla mëna na def nak ba àdduna dox ba ñu dajawaat ci ci les mêmes conditions ñu andat mais and bobu ñu àndoon ci élection législative jeex légui mouvement dafa jóg taxaw nak maintenant pour continuer son chemin nan lay continuer son chemin mom moy pour déjà dañu structurer le mouvement massifier élargir base du mouvement dans tout dans dans dans tout Thiès voire même euh, bu ñu paree ci loolu génn Thiès et pour cela tamit dañu bëgg actuellement di def ay manifestations Yo xamni ni vraiment yo xamni ni si suñu porte la nek, parce que ñun tamit ma fàttali amul kenn ko xamni ci nguur gi nga ne ñi fi ne fi yépp di def Thiès di di def ay manifestations bo xolé am ñu poste quelque part donc ñun dañuy cotiser manifestation bu def même def lancement on a cotisé pour def ko donc lépp lu def dañuy cotiser euh, pour def ko parce que ay citoyens bëgg suñu dëkk bëgg suñu dëkk bëgg suñu tax ñun ñu pour dugg politique. parce que bu dee xaalis bu dee la ñun ñëpp ingénieur la polytechnicien sax la ci pour c'est un professeur de lycée. Hein? il est le coordinateur du de la région de Thiès donc nous, ñu am xam-xam rek fi amul kenn dañ lay jox nga donc nekku ci nguur nekku ñu fenn bëgg Thiès ak bëgg askanu Thiès moom moo ñu ñëw ñëw fii pour pour pour waxtaan mouvement bi. donc alliance bi loolu la pour am stratégie massifier suñu mouvement continuer liggéey bu doon def am ay manifestations programme ci mois de mars wala avril ak mois de mai yo xamni dañ ko def defe naa manifestation yoy sax bu ñëwé defe naa ni yenn wa Thiès fa di ngeen ci di ngeen ci xam dara parce que boba dinañ leen wo loolu mo amone tay ci teunk bu ndaw ci li nga xamni ne loolu lañ fi doon wax daal pour ñu baña a amalgamé xam ñun suñu mouvement la on est un mouvement autonome bo xamni ñun alliance pour une nouvelle direction lañu tuddu donc dañu àndoon ci élection yi taalasi la mais élection législative jeexna na suñu mouvement day continuer son bonhomme de chemin liggéey liggéey bu mu war a def ba suñu objectif yi ñu bëgg ci Thiès duñ ko wax léegi lu ñu objectif ñu bëgg Thiès ñu atteindre ko loolu mooy loolu loolu mooy li ñu tënk à peu près ci réunion bi nga xam ni commencé nañ ko depuis 17 h docteur Djibril Sarr je suis pharmacien je suis président du mouvement Alliance pour une nouvelle direction nous sommes là aujourd'hui pour faire une réunion cette réunion qui tourne autour de trois points d'abord le premier point c'est c'est l'information le deuxième point c'est le bilan de notre compagnonnage avec Thales. Le, le troisième point, c'est les perspectives et les orientations de notre mouvement. Et le quatrième point, c'est les, euh, les divers. Donc pour le premier point, je résume quoi Pour le premier point, l'information, c'est que là où nous nous trouvons, c'est le siège de l'Alliance pour une nouvelle direction, Andre. C'est le nouveau siège de l'Alliance. Donc c'est notre première réunion ici dans, dans, le siège. Donc le deuxième point, euh, c'était pour informer aux membres du mouvement que le mouvement a maintenant une page Facebook, Alliance pour une nouvelle direction. Donc toutes les manifestations qu'on aura à faire seront dans cette page. Donc c'est pour permettre à nos, à nos militants de visiter la page, de partager et de donner leur avis. Donc nous avons créé, une page Facebook. Le troisième, euh, la troisième information, c'est que nous avons aussi des quatre membres qu'on va démarrer à vendre pour les membres du mouvement Alliance pour une nouvelle direction. Donc c'était ça l'information. Le deuxième point, c'était c'est le bilan de notre compagnonnage avec Thalesila. Euh, vous savez qu'on a créé le mouvement Alliance pour une nouvelle direction le 14 mai 2017 avec une belle affluence. Et au sorti de, cette, euh, de, ce, lancement, nous avons fait un point de presse pour dire à la presse que nous allons participer aux élections euh, législatives de 2017 pour deux raisons. D'abord, pour avoir une bonne visibilité Ensuite, pour avoir une expérience électorale, c'est ce que nous avons fait et nous ne l'avons pas regretté parce que notre objectif a été atteint. Nous avons eu euh, une expérience électorale par rapport aux élections législatives. Nous avons, eu aussi une belle visibilité parce que nous étions à la télé, dans les radios, etc. Donc euh, on était visible. Donc pour cela, notre objectif est atteint. Maintenant, les élections sont terminées. Notre compagnonnage avec, euh, le mouvement FALASKONBI, bien sûr, c'est terminé. Donc nous continuons notre bonhomme de chemin. Et je profite de cette occasion pour remercier le mouvement Fal Askanbi et le président même Talasila qui nous a ouvert les portes. Et on a eu à travailler vraiment de façon, de façon sincère et sérieuse. Et vraiment, pour cela, je le remercie et je, remercie tous les membres du mouvement Fal Askanbi. Donc, euh, c'était ça l'objet de notre réunion en gros.